alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ixwaani fillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu del siwaat nañ ak yéen ci maza yastafidu sabab min yowmi aljumaa ndaw yi ana lan la ñu war a jëriñoo ci bisub aljuma ginnaaw bu ñu fàttalee ajjuma bi paase xéewal ak njëriñ yi nekk ci bisub aljuma ak julli ci ajjuma nu mu nekkee farata bisu ajjuma nu mu màggee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko doon wax xayru yowmin talaat fihi sams yowmul jumaa bis bi gën a màgg ci bis yi jant di xëy di ci fenk yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na mooy bisu aljuma ndeke mbokk yi bëgg nañ jëf yi jullit di ko jëf bisu aljuma bi ci njëkk mooy mu sangu balaa muy julli ji aljuma fii nag wax dëgg yàlla di nga dem léeg-léeg ay juma nga daja faak ay jullit yoo xam ne ñu ngi jóge ci seeni garage wàcc ci seeni atelier waxuma la sangu waaye seeni yére sax yañ doon liggéeyee changé wuñu ko xoolal yonent sallallahu alayhi wa sallam daan soññ jullit yi naan leen ku reere laaj bu mu jege sunu jàkk ku reere laaj kuy xeeñ xetu laaj bul jege sunuy jàkk waa naka kon la ab jullit ci bis boo xam ne ci moom bisu feet la parce que aljuma ci ñun bisu feet la kon naka la ñuy nekkee ci bisu feet waxuma la ñu sang waaye sunu yére sax changé wuñu ko kon ndeke dina jaadu ci jullit bisu aljuma mu sangu ci mu setal yaramam ba mu set yaram yooyu sax ci setal gi mu koy setal boroom xam-xam yi dañ cee boole ay weem bu fekkee dafa gudd na ko lelli dañ cee boole naqam su fekkee dafa am kawar na ko wat ay poqotaanam bu fekkee dafa doy waar na ko wat ay weyam na ko lelli ba mu leer ko ne fenn ci yaramam amul xet gu fay bàyyeekoo yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na man jaa minkum aljumaa falyaxtasil képp koo xam ne ci yéen day julli ji jumaa yonent bi nee na na sangu na sangu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku sangu bisu àjjuma mu teel a dem ba muy dem mu dox ak ay tànkam bu mu demee ba ci jumaa ja jéggiwul mbaggu nit ñi xuusul ci biiru nit ñi di leen jéggi ba mu demee ba toog ba mu demee ba yegg ci jumaa ji mu julli ñaari ràkk nuyu jumaa ji daal di toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku loolu mu def mi ngi mel ne ku umra ji am na tiyaabay ku umra ji kon ndeke axzu zina sollu taaru defaru rafet loolu lu ñu bëgg ci juddi la bisu aljuma kon sunu déggee lii dina nañu xam ne dina nekk lu jaadu ci ñun ñuy defaru bisu aljuma balaa ñuy julli ji ci waajal guñ ko war a waajal dellu siwaat sunu kër yi sangu bu ko laajee jël yére yi ñu gën a taarlu deme ko jumaa mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala moo ñu woo ci qur'an mu ne yaa bani aadam xuzu zinatakum inda kulli masjid e yéen doomu aadama yi ngalawaay su ngeen di demati ci jë néegu yàlla yi ci jàkka yàlla yi ngalawaay dee leen taaru ndeke dafa jaadu nekkul bisu àjjuma rek sax waaye saa yooy dem jàkk xoolal yére yi nga sol mbokk yi damay laajte ndax kenn ci ñun dina dem pale ak tëneem ndax kenn ci ñun dina dem pale ak yére yi muy duggee ci waañ wi kenn ci ñun dina dem pale ak yére yi muy yendoo lu tax dañ naan njiitu réew mi laay seeti dañ naan borom dëkk bi laay seeti waaye kii buuru buuru dëkk borom dëkk bi nag borom dëkk bi mooy buuru dëkk bi kii buuru buuru dëkk bi nag borom dëkk bi nag kooku kon kuy dajeeg moom loo war a def kuy dem ci néegu yàlla ngay dem ci néegu kilifa rek da nga tàggat sa bopp defar sa bopp léegi nag yaa ngi dem ci néegu sunu borom subhanahu wa taala kon dina jaadu ñuy bàyyi xel aljuma ci ay yére ci sangu ci lu ñuy xeeñ rawatina nag mbokk yi borom xam-xam yi dañoo soññe yére boobu bu mu nee weex moo gën yére boobu bu mu nee weex moo gën mu ne dañu war a fonk aljuma ba bu ñuy génn ñu defaru taaru sol sunu yére yu weex waaye ànd ak sunuy doom waaye ànd ak sunuy soxna ndeke jigéen sax day julli ji aljuma waaye waru ko su demee nag day am tiyaaba jigéen mën naa julli ji aljuma waaye waru ko waaye bu demee day am tiyaaba waaye jigéen jooju buy demit na bàyyi xel ni muy demee ci yére yi mu war a sol mais léeg-léeg nga dem ci ajjuma yàlla nattu la nga jullee ci wetu jigéen ña da ngay dégg ca biir wax kese dañuy wax di wax ba ba ñuy sëlmal julli gi loolu tamit du lu gën néegu yàlla boo fa nekkee sa kàddu lenn la war a nekk mooy astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah lii moo war a nekk sa kàddu wala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala jàng alquran wala di julli lii nga war a taqoo boo duggee ci néegu yàlla mooy jàng alquran wala tagg yàlla di ko bàkk di ko kañ wala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ngay julli di naafila ba julli gi jot mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man iqtasala yawmal jumaa képp ku sangu bisu aljuma mu daal di laab ci lu nu mu mënee laab mu diw nu mu mën a diwoo mu xeeñ parfum mu daal di génn tàqalewul ñaari nit fa salla ma kutiba lahu mu julli li nga xam ne moom la war a julli ci naafila mu déglu imaam bi bu imaam bi di xutba nee na xufira lahu ma baynahu wa bayna jumaatil uxra yàlla dina ko déggal ay bàkkaaram diggante ñaari aljuma yi mbokk yi su ñu yemoon ci xadis bii rek ci njëriñu aljuma doon na doy ana kan ci ñun moo amuli bàkkaar ana kan ci ñun moo yenuwul ay conteneur fees dell ci ay bàkkaar ñu indil la loo xam ne boo ko defee yàlla jéggal la say bàkkaar kon lan moo fi desati lu dul ñu taxaw ci jëfe loo xam ne buñ ko defee yàlla baal ñu mooy lan aljuma jot nga defaru ba rafet diw peñe sa kawar peñe sa sikkim bu dee góor nga bu dee jigéen du laal diw du laal parfum du gëttu du cuuraayu yéreem lay sol tafu ca miiri jàkka ja dugg ca place ba jigéen ñay jullee lépp loo xam ne dafay indi fitna moom jigéen ji mu moytu ko bu dee góor moom lañ sant mu laal mu gëttu def parfum ci yaramam diw kawaram peñe ko ba mu rafet sol ay yéreem yu set bu weexee moo gën mu dem naafila lu mu mën a naafila la mu fekkee ca waxtu wala fa jot mu naafila su imaam bi di xutba mu déglu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na képp ku def lii gufira lahu ma baynahu wa bayna jumaati l uxra yàlla dina la jéggal say bàkkaar diggante ajjuma bi nga nekk ak ajjuma bay ñëw tax ma ni aljuma bu ñu xamoon li ci nekk ci ay njëriñ doon nañ yàkkamti aljuma sunu bés yëpp nekk aljuma li waral li mooy aljuma feet la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko feetal ci ñun moo ñu sant nañu ko julli ji loolu moo tax mu ne ku ci def lii yàlla jéggal ko ay bàkkaaram te mbokk yi bàkkaar ñépp ko am bu kulli ibnu aadama xabtaun wa xayrul xattaina tawabin doomu aadama yépp am bàkkaar koo gis muy dox ci kaw suuf am na bàkkaar yal na yàlla yërëm abdullah ibnu mas'ud doon na wax sahabatul kiram law alimtum zunubi la rajamtumuni bil xijaari xatta al mawt su ngeen xamoon samay bàkkaar di ngeen ma dóor ay xeer ba ma faatu xoolal abdullah ibnu mas'ud mooy ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku bëgg a jàng alquran mu tooy xépp comme ni ko yàlla wàccee jàng ko comme ni ko abdullah ibnu mas'ud di jàngee abdullah ibnu mas'ud mooy ki ne jàng naa juróom ñaar fukki saar ci gémmuñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku mu mën a doon ñeme naa la ci du ma ci xëccoo kenn laa unazi laa unaziu fiha ahad du ma ci xëccoo kenn ku ñeme ñëwal terawul kii moo tëdd ci sukuraat sahaaba yi wër ko ne ko luy sa problème mu ne samay bakkaar allahu akbar kon mbokk yi sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam indilee luy tax yàlla baal ñu suy bàkkaar sunu bàkkaar kon loolu lañu war a def tey suñ ñu indiloon benn ñaan boo xam ne ku ko ñaan rek am xaalis suñ ñu jàngaloon benn ñaan boo xam ne ku ko jàng rek saa yoo yëkkatee sa njaganaay di nga fa fekk 5000 francs wala saa yoo dugalee sa loxo sa poos di nga fa fekk 5000 mbokk yi damay laajte ana kan ci ñun moo dul jàng ñaan boobu dinaa ko jàng yéen di ngeen ko jàng lu tax ndax njëriñ la gu ñuy dolli ci suñu wàllu àdduna léegi nag lu ñuy dolli ci suñu wàllu àllaaxira luy tax yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar damay laaj loolu war nañ cee sonn wala waruñ cee sonn tontu bi mooy ah kay war nañ cee sonn ixwatal iman waaye bokk na ci leneen lu ñu bëgg bisu aljuma nit di ko def ginnaaw sangu sol yére yu laab rawatina mu weex mooy teel a dem ca jumaa ji léegi nga gis ay nit ay jullit yoo xam ne aljuma day toog day jot ñu toog ba mu neex leen wala dañuy teel a dem waaye bu ñu demee ñu nekk ca biti jumaa ja ku nekk di dàkk fa nga war a toog jumaa ji dañ ko war a organiser taaral ko rafetal ko ba mu rafet sàppe yi dafa war a sësante léeg-léeg nga gis ay nit ñoo xam ne ñu ngay julli ca biti jumaa ja te biir jumaa ji feesul léeg-léeg nga gis koo xam ne digganteem ak jumaa ji mën na un kilomètre ndax rek benn garab wala benn keppaar wala yàkkamti wala tayal ci am tiyaaba te mbokk yi suñuy waxante dëgg rek tey bu njiitu réew mi toogoon nekkoon ci benn place ñun ñëpp dañ koy bëgg a jege ñun kenn ku nekk ci ñun da nga koy bëgg a jege wala benn kilifa rek ci kilifa diine yi nekk ci benn barab kenn ku nekk ci ñun da nga koy bëgg a jege waaw lu tax ñun bëgguñu jege néegu yàlla lu tax bëggoo dugg ci néegu yàlla bi nga jege imam lu tax lu tax bëggoo nekk sàppe premier xanaa xamoo ñi ëpp tiyaaba ci biir jumaa ji mooy ñi nekk sàppe premier yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla ak malaaka yi dañuy ñaanal waa sàppe premier allahu akbar waa sàppe premier ñu ëpp tiyaaba ci jàkk ji kon jullit na teel a dem jumaa bu mu toog ba jum waxtu wi des juróomi minute muy njëkkante di dem yenn saa yi sax mu yegg si du mun a def ñaari ràkk nuyu jàkka ji wala ñaari ràpp ñaari ràkk pour naafila teel a dem mbokk yi dañ ko bëgg bisu aljuma ndax ay tiyaaba yu rëy ñoo ci nekk nañ nañ ci xër bu ñu tayal jàpp bu ñu lenn jàpp bu ñu sàggane jàpp ba ñuy toog ba mu des juróomi minute ñuy doog a dem ci jumaa ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku sangu bisu aljuma man ightasala yawmul jumaa képp ku sangu bisu aljuma comme ni ngay sangoo janaaba jullit ba ajjuma jotee mu war a dem julli ji jumaa dafa war a sangu set moo xam yaramam taq na sal sobe wala yaramam amul sobe dafa war a sangu set képp koo xam ne dangaa mesure ci lislaam dangaa gént mu kallaf nga su ajjuma jotee yëgal ne ajjuma war na ci yow waaye yëgal ne sangu set war na ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo sangoo ba pare nga génn ci première waxtu wa nga jëm ca jumaa ja mu ne fa ka annama qarraba badana mu ne mu ngi mel ni ku jege yàlla ci lu tol ni gëléem am na tiyaabay gëléem ci jege yàlla subhanahu wa taala mu ne ku dem ginnaaw loolu mi ngi mel ni am na tiyaabay nag mu ne ku dem ginnaaw loolu mi ngi mel ni am na tiyaabay kuy mu ne ku dem ginnaaw loolu mi ngi mel ne am na tiyaabay ginaar ku dem ginnaaw loolu mi ngi mel ne ku am tiyaabay nen mbokk yi xool leen tiyaaba yi tiyaabay gëléem tiyaabay nag tiyaabay kuy tiyaaba ginaar tiyaaba nen juróomi tiyaaba yi buñ ko tegaloon sunu kanam ñu ne ku nekk na nga jël benn kan ci ñun mooy jël nen bi lan moo waral waa ji mu am tiyaabay nen mooy dafa toog ba waxtu waa ji bëgg a jeex ba imaam commencé xutba yenn saa yi sax toogul ba imaam commencé xutba waaye dafa toog toog bañ ne bismillah mu doog a gàddu basangam daw mbokk yi ndeke tiyaaba daf ñu war a yitteel daf ñu war a ñor ñu koy njëkkante rawantina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu jëlee xaa waxtu jumaa daal di koy xaaj xaaj yu toll nii mu ne ku dem première heure am nga tiyaabay gëléem ku dem ñaareel ba am nga tiyaabay nag ku dem ñetteel am nga tiraa tiyaabay kuy ku dem beneen bi am nga tiyaabay ginaar ku dem beneen bi am nga tiyaaba nen xam nga ne ku am tiyaaba nen amul dara nit ñi bu ñuy xëccoo ku nekk di indil ay ganam lu mu leen berndeel ñi reyal seen gan gëléem ñi reyal seeni gan nag ñi reyal seeni gan kuy ñi reyal seeni gan ay ginaar yow nga indi nen say gan danañ la jéppi bu ñuy wax dëgg mbokk yi ci su sunu borom subhanahu wa taala moo ñu bëgg a baaxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu soññ ci tiyaaba yooyu loolu moo tax ñu ñuy soññ pour ñu teel a dem juma ndax ñu mën a màng tiyaaba yu rëy yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ba tey ci ngëneelu julli ajjuma mu ne isa kaana yowmul jumaa kaana ala kulli baabin min abwaabi almasjid almalaika yaktubuuna al awwal fal awwal allahu akbar yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na bu ajjuma jotee malaaka yi dañuy wàcc jóge kaw asamaan wàcc ci kaw suuf yore ay registre lan mooy seen mbir lan la ñuy def mooy dañuy bind turu ñu njëkk a ñëw allahu akbar turu ñu njëkk a dugg ci jumaa ji turu ñi nekk première sàppe turu ñi njëkk a ñëw ci première waxtu wi fa iza jalasa al imam su imam bi toogee nag ci minbar bi malaaka yi daal di lem papier yooyu ku ñëwati kenn du bind sa tur allahu akbar ndeke ay nit ñi ngi dem jumaa ñuy bind seen tur ndax ñoom dañoo teel a ñëw waaye ndeke mbokk yi ay nit ñi ngi dem jumaa kenn du bind ci seen tur xoolal ñooñu nag seen dund yépp kenn du bind ci seen tur malaaka yi duñ bind seen tur lii ana lan moo ko gën a nekk yiw mbokk yi lii lan moo ko gën a nekk tiyaaba ndeke nanu góorgóorlu ñuy teel a dem jumaa ndax malaaka yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xabaar na ñu ngi wàcc jóge kaw asamaan ñëw yore seeni këyit yore seeni xalima di bind turu ñuy njëkk a ñëw wallahi mbokk yi président de la république su joxe woon ndigal daan ne bisub sàngam jumaa ji ku fi njëkk dinañ bind turam billahi wallahi taalaahi amul kenn ci ñun kuy toog ba deux heures et quart nga doog a dem jumaa wallahi jumaa jooju bis boobu dana fees une heure benn mbokk mu ngi ñuy nettali ne Houphouët-Boigny président Côte d'Ivoire ba woon dafa tabaxoon église bu rëy église boo xamante ne daanaka mën nga ne Afrique amu fi nee na benn waay ne ko nag waaw comme tabax nga église te ngaa tabax juma pour julli di mu daal di tabax juma julli ñi di romb jumaa ji naan ah jumaa ji di ab yéefir a ko tabax kenn du fi julli jumaa ji am ay at kenn du ci julli benn waaye ñëw ne ko président mu ne ko ah mu ne ko yàq nga xaalis mu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ko jumaa ja nga tabax kenn du ci julli kenn du fa taxaw amul picc mu ne baax na ajjuma daal di jot président de la république ànd ak escortam ñëw ci jumaa ji mu xaar ba ñu julli mu fekk fa juróomi nit ku nekk mu jox ko enveloppe bu deux cent mille ah ñooñu daal di ñibbi ñaareelu jumaa bi mu daal di ñëw fekk jumaa ji fees mu daal di jox ku nekk enveloppe bu cent mille troisième jumaa mu ñëw fekk biir jumaa ji fees biti jumaa ji fees koñ ya fees tali ya fees mu ne leen yal na leen yàlla nangul mbokk yi yal na yàlla def ci ñun dégg ak topp kon jumaa ngi noonu ay xéewalam a ngi noonu yal na leen yàlla defal ñu tawfiq ñu ngi leen di ziyaara ci bisu ajjuma bi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu non non non non ay ay minutes la rek waaw déedéet du gudd bii daanaka 15 minutes la war a doon 10 minutes parce que soññaata rek ci njëriñu aljuma parce que xam nga aljuma benn bis la soo ko bëggee def 30 minutes 30 minutes danga koy def ñetti aljuma mu jeex